mbokki Sénégal mbokki bitim réew xéewal ñëw na ci askan wi de soxna na fi Fallou Fall mu sëñ Abdou Karim Mbacke andil na leen nag ay produits yu mucc ay produits yoo xam ne xéewale na ci askan wi savon miracle bi xam ne day faj siti waaye sama kéemaan gi geneen kéemaan a ngi noonu muy kéemaan goo xam ne ci karaw képp koo xam sa karaw day dama mi root xam ne boo ko xam ne am yaram boo ko diwoo di nga wàññeeku miracle boo xam ne traitement roñon lay def nga xam ne dañoo am nerf sciatique ñi nga xam dañoo am rhumatisme wala ñi nga xam ne dañoo am fatiguement général ak frotté boo xam ne pour sportif yi ak pompe miracle boo xam ne day faj réew loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indil muy xéewal gi ñu andi réew mi kon yéen yëpp dem leen seeti soxna na fi fàllu faal fa nga xam ne ca golf la su ko defee seen aajo faj jërë ngeen jëf mbokk internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek leen ziar tey nekk di si ànd ak waa Mbirkilane FM ah depuis Saloum DJ Babacar Sarr ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ak ay auditeurs am di nuyu aussi DJ Mo ah borom Vice FM depuis Gambia ñoo ngi koy nuyu di ko ziar seen auditeurs yëpp di nuyu Père Ndongo Cissé ah depuis Gambia moom nag Doudou Sané mooy mbërëm ah ak ah, waaw waa Joof yooyu rek daanaka ñoom la gën di supporté Père Ndongo ñoo ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu Père Idi Dione Papa Lamine ah. journal bu sunu lamb lañ koy njëkkee rek moom mi nga xamante nag dafa xëy nag di wax ci combat bi nga xamante ni yaakaar na ne moom la ñëpp di xaar ni dimanche incha allahu rabi mu war a dox si diggante le B52 ak ki nga xamante ni tey moo di le Géant du Baol diggante Bombardier ak Tapha Tine moo tax journaliste di di wax ne le cinquante 52 prêt à bombarder Tapha Tine nag ab laaj la rek bu journal bi di sàmb parce que jàpp na ne côté expérience côté lutte pure ak diggante li nga xamante ni tey moo di force physique ah day sampalaat rek ba xam ndax Bombardier ndax pare na wala parewul ak laaj la boo xamante ni te yaakaar naa ne dimanche soreetul xam naa ne Bombardier dina si andi ah ay leeral dina si tontu incha allahu rabbi jàpp nañu daal ah il est tactique ah il peut user expérience mu mel ni nag tey bon boo xoolee côté expérience moom Bombardier moo jiitu Tapha Tine ci làmb peut-être am na bagage intellectuel ci làmb boo xamante ni peut-être Tapha Tine ko waaye ak lu mën a xew rek journal bi daal mu ngi xamle que ne Tapha Tine moom daa war a lucide maanaam ànd ak sang-froid am dal ba pare euh, nekk koo xamante ni tey maanaam tey day nekk day day attentif mobile maanaam day am xel mu sell mën a dégg mën a déglu xaar di Bombardier ba xam naka la Bombardier di ñëwee waaye tamit na gaaw lool lool lool mën a déplacé wu mën a curuxu curuxu yaakaar na ne day am solo ci boobu la combat waaye ak lu mën a xew daal dimanche la incha allahu rabbi choc des géants la nag revanche boo xamante ni tey yaakaar na ne seen premier combat Sénégal yëpp gis nañ ni mu demee xeex bi métti woon na deret tuuru woon na waaye ak lu mën a xew am nañ yaakaar ne ñaari ñi moom duñu yegg foofu noonu parce que ils ont ah, si diggante bi waaye ba léegi rek samedi incha allahu rabi combat bu neex wala ay combat yu neex sax galaa la plateau la kat moo ko woote Assane Ndiaye borom Bawol production gàkku doo bébé jën ku ne xam ne ne combat bu neex a neex a neex a neex la père xës nag nekk coach en ah, fële ci école de Boña moo si yëkkati ay kàddu di wax nag di def ay analyse am wala di joxe xalaatam ci boobule combat jàpp na ne daal Gackou 2 moom moom moo nekk favori ci ki nga xam ci kanamu wala ci kaw Bébé joxe na nag ah, li nga xamante ni tey moo di euh, euh, euh, xalaatam joxe position joxe gis-gisam te nee nañ ko si guutee gis-gis moo waral marchandise di jar waaye ak lu mën a xew daal nee na Bébé moom na ñëw lu sit parce que jàpp na ne Gackou 2 moo fort ci bagarre parce que boo seetloo nee na seetaan na ko combat bi mujj digganteem ak euh, Boy Dakar te gis na ne bébé euh, gàkku de moo dominé woon côté xeex beeg côté bëri bi kon moo tax daal muy yëkkati ay kàddu dankaafu jëmale ko ci bébé jéen daal nee na daal na dal ànd ak lucidité ànd ak sang-froid bu bëggee génn ci boobu boobule combat kii nag dal la àndal. lucidité doole ju bëree bëree bëri détermination kooku la ñu woowee Doudou Sané ñi naan ko le roi Sané sept galas remportés en sept sorties en mbëru Baye Touré bi depuis Touré Sport mu mel ni nag xaali la boo xamante ni daa wane na boppam ni ma ko waxee rek Doudou Sané loo bu ñu dugg bokk fa ci ay magam lay bëreel instant yi ni ay grand frère am ñu ko jiitu ci lamb wala sax ay udelam ñoo xamante ni daf leen doon supporté ba yàlla dogal te Euh, yoo xamante ni tey dem na bind ko set yëpp yàlla dogal mu jël ko kon yaakaar na ne Doudou Sané moom léegi mu bëgg a jot ah gars yi nga xamante ni tey ñoo njëkkoon sax ubbi jamono ji nag xam naa ne dootul mën a bëre parce que comme maam taxaw na moom ak mbul bu tuwaawoon le 5 mars incha allahu rabi beneen espoir tamit journal bi wane na ko moom tamit def ah, en 7 sur 7 ñu koy wooyee Batista 2 nekk xale nekk champion boo xamante ni tey invaincu def na sept combats sept victoires digganteem ak Boy Sadio nag la ñuy xaarandi le 4 mars incha allahu rabi les jeunes amateurs ñoo ko tëgg ñoom góorandoo moo war a nekk nag journée bu neex a neex a neex a neex a neex boo xamante ni te yaakaar naa ne képp kuy dund lamb rek jour si moom boo ñëwee stade di nga si am contentement kii nag yaram bu tàng la ñib see Europe ñu koy woowee Zarko depuis ba mu ñibbisee nag sonal na waa Médina ak waa fas mu mel ni nag bi mu jógee ci mbay guy gi jë jóge ci aada Fass jamono ji nag jën kayri la jël waaye nee na guy gi kii nga xamante ni tey moo di moo di Gris Bordeaux moom ak lu mën a xew na na xaar rek te xam ne su paree ci jën kayri ci moom laa ñëw mu mel ni daal jën euh, jën kayri euh, nekkul sax koo xamante ni maanaam tey lu muy xalaat la nee na moom bu paree si jën kayri Gris Bordeaux na xam ne ci moom lañ ñëw waaye ba léegi rek yaakaar naa ne am na solo lool lool lool lool lool waaye si biir journal bi nga xamante ni tey moo di journal bu sunu làmb euh, ñu ngi ñuy woon kam ki nga xamante ni rek tey moo di Tapha Tine diggante ki nga xamante ni tey moo di baaba kamara Baba Camara mooy wax maanaam tey ci ci ci boobule combat nee na Tapha Tine daal am na léger avantage maanaam avantage bu ndaw a ndaw rek ci kaw ki nga xamante ni tey moo di euh, le b moom Baba Camara nag nekk chroniqueur fële ca Sud FM ah bu Thiès dox joxe daal li nga xamante ni tey moo di AVM parce que jàpp na ne nag Balla Gaye moo nekk seen lien ñoom ñaar seen lien direct direct kon nag ak lu mën a xew daal jàpp na ne euh, Tapha Tine daal am na avantage bu ndaw boo xamante daal am na ko. ci boobu combat waaye ba léegi rek ci biir journal ba suñu lamb wala ci biir tuus bi rek journal ba li muy samp wala laaj bi muy samp mooy ba xam ndax ñaari mbër yi dinañ loolu nag ñu ngi koy xaarandi si ñoom ñaari ñëpp tafaate ñu ngi xaarandi si moom mobilisation bu doy waar bawol yëpp topp ko Dakar yëpp topp ko waaye Bombardier tamit waxuma la waaye peut-être bi yëpp dañu ko war a topp parce que c'est un lutteur boo xamante a fait dooleel ko accompagner ko booster ko motiver ko yaakaar naa am solo lool lool lool retour des VIP à l'arène nationale ku su mel ni Sélémélé gis nañ ko fa dañ ko humilier rek ki nga xamante ni moo ko daan moo di Boy Maroon waaye Joal Fadiouth gis nañ ne Toubacouta dominé na Idi Poungueur mu mel nag tey moom ah, euh, mu ngi góorgóorlu moom Toubacouta di def ay sorties yoo xamante ni tey yaakaar naa ne ay sorties yu am solo la yaakaar naa ne euh, noonu la ñuy daal di def rek. daal di jàdd koñ fekk foofu nag journal bi nga xamante ni tey moo di journal bu record journal bu record tam ba rek dafa desandi ci gala bi amoon fële si arène nationale Doudou Sané moo li nga xamante ni moo di poids léger yi waaye ki nga xamante moo di Babacar Tine jël li nga xamante ne rek te yaakaar na ne moom moo di eh, poids léger yi yaakaar na ne Doudou Sané bu jëlee loolu Babacar Tine jël poids léger yi ngóor ñaax nag la gars yi doon xaarane mu jël raw gàddu gi waaye nag ñaax dañ ko mujjee daan li nga xamante ni tey moo di euh, final par Ousseynou Dieng bi nga xamante ni rek moom Ngor ñaax moo ko daanoon dimanche ba lay passé final kon yaakaar naa ne lamb la rek loolu tamit def si am solo la mu mel ni nag tey Fallou Ndiaye bi nga xamante ni nag moom ak Jax production ak Ibrahima Diop ñoo organisé woon 6 millions yi yaramam dafa tàng li ñu naan na euh, ñam naa ko neex na dootuma ko bàyyi wala fi nga waxoon foofu xasan delloo fa sab loxo Fallou Ndiaye dafa fas yéene nag delloo loxoom bëgg-bëggam nag mooy tëgg mise vingt cinq millions de francs CFA waaw vingt cinq millions la wax de moom la bëgg a teg incha allah rabbi fële sa arène nationale mu ngi xoolal nag si mois de mai bi su fekkee ne dina jàppante rek mu tëgg ko fa waaye loolu yaakaar naa ne bu ko tëggee ñoom Reug ñoom Sa Thiès ah yaakaar naa ne gars yi war nañ mën a wàcc de ñoom doomu dàngu mbër yi fi nekk ñëpp amuñu combat yaakaar naa ne loolu mbër bu am combat sax war nga a ah, sa poche am na solo kon yaakaar naa ne euh, loolu tamit ah, lu lu lu lu lu jaadu la loo xamante ni tey na si gars jàpp rek ngir mu mën a euh, sotti incha allahu rabbi Bébé Diène Gackou Dóor nag ñaari mbër yu ku si nekk yaa ngi yëkkati ay kàddu Gackou Dóor démb def na open press am wax na jëmale ko si Bébé Diène bëgg-bëggam nag rek moom mooy que ne daan ki nga xamante ni rek tey moo di Bébé Diène waaye nee na balaa ma koo daan bëgg na ko duma woon ko ne ko duma moromam ba pare waaye ton li ñu naan tontu du forox Bébé Diène nee na ko ne ay daan moom loolu da nga koy gént rek waaw waaye nee na leer na doo ma mës a daan dafa mel ne nag leerali loolu moo si gënoon a fës di ñaan jàmm si Sénégal di ko ñaan si àdduna bi di le 12 mars fële si jaxaw si ñu si sargal nag suñu papa suñu xarit muy Ablaye Ndour nekk ministre conseiller à la présidence moom euh, mu ngom mbayang lum incha allah rabi mu si un million gars yi rendez-vous mars mbokki Sénégal mbokki bitim réew xéewal ñëw na ci askan wi de soxna na fi Fallou Fall mu sëñ Abdou Karim Mbacke andil na leen nag ay produits yu mucc ay produits yoo xam ne xéewale na ci askan wi savon miracle bi xam ne day faj siti waaye sama kéemaan gi geneen kéemaan a ngi muy kéemaan goo xam ne ci karaw képp koo xam sa karaw day dama mi root xam ne boo ko xam ne am yaram boo ko diwoo di nga wàññeeku miracle boo xam ne traitement roñon lay def nga xam ne dañoo am nerf sciatique ñi nga xam dañoo am rhumatisme wala ñi nga xam ne dañoo am fatiguement général ak frotté boo xam ne pour sportif pompe miracle boo xam ne day faj réew loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indil muy xéewal gi ñu andi réew kon yéen yëpp dem leen seeti soxna na fi fàllu faal fa la nga xam ne ca golf la su ko defee seen aajo faj